الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتقى المصلي صلى وسلم عليه الله في الآل والصحب ومن والاه وأمر الأملاك أيضا بالصلاة علي زائدا بذلك هلا ثم إلينا وجعل خطابا تكرما وأنفس لتابا فقمت قائلا ما امتثالي أمر جميل جل المثال يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد باب لا يا آمرا بأن نصلي على نبينا محمد الباب لا إليك مني بسر مقدمة في خلوه التي القديم قدمه يلا وسل ابدا وسلم على نبيك سراج العلماء ان الله عليكم ورحمته وبركاته مبك جليدي مبك طالبين نيغي لن نيبات دي لن سياري واخلكم تي في ني لن كو واخي وون ادمو نيك ريك آه، فني نيك سي دال بي لن اني دال بيغا خامني موم لا سوي غاي جيتو دفر دفر موم سولو آه، تلي باغي ني جاكارلو بي جوغي دار خدوس نييو باغي خامتيني بلا غا اغ توبا خلكم انتر دار سكور فوفو لن داف تابلو بي في غاي جادي بو جادي نك دوغ سا تيامون matul presque 100 mètres 200 mètres matuko su ko defé nak ñi ngi taxaw ak jëwriñ ci jëwriñ yi nak ño def li ngeen gis ñi def ko genn kër gu am solo manam plan bu yéme señ Aladji Kane bokk ci ñi jiitu ci jëwriñ ñi nekk Dakar sëriñ Bada Sall suñu jëwriñ ji mag tam bàyyi ko euh, Touba moom it naka jekk dañ leen di ñaanal su borom dool leen tawfeex xam naa nag dana metti ndax euh, seen xol sedd na suñu xol sedd na te wóor ni lépp sëriñ bi rek la ba ci ki ñu jiite muy sëñ Cheikh sax ñun ñëpp daanaka booy xol ab jël lañ fi nekk bi liggéey mënuñoo tàmbali waaye loolu lépp li koy war rek mooy sëriñ Saliou mooy dimbale nitam te dimbalewaat da leen dimbalewaat dañu jëwriñ kon dañu daay ànd euh, ngir nga wan ñu dal yi waaye laataa loolu dal yi ni ngeen ko plané actuellement waaw jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki julliti mbokki talibe yi mbokki yi teewlu suñu uh, set bi di xel Khelcom TV ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax di siyaare suñu njiital ci nuyoo beeg bi Serigne Cheikh mbakki moom Serigne Saliou di ko ñaanal yàlla saa borom yeggal fi te wéral ko saa borom sàmm ko te aar ko mboolem yéene yeeg naal yi nga xam ne Serigne bi wàcc ma ko mu àggale naal yëpp te ñu ànd ànd ko moom ci barkeb Serigne bi kon sëñ Afe ñoo ngi nii ci bunt bi ñu ngi jóge ci tali bi jëm si ci biir dal bi fi ñu taxaw nii mooy bunt bi aw yoon la woo xam ne dañ koo xàll mu jëm ci tali bi direct jëm si ci biir dal bi kon euh, boo boo xoolee suñ suñ bada yaakaar naa ne yow sax yaa ngi tëjal waaye du mën a ñàkk euh, cant gi cant gi rek suñ bada bismillah bismillah mina seetaan la ji sant ñëpp da ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko hmm. liggéey bii ni ñu ko doore yal na yegg nañ ci alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan suñu borom mi nga xam ne dina taw noonu ñu ko ñaane woon uh-huh. ci mbooloo yi ci gox yi mën a bàyyi ko uh-huh. suñu borom ni mu leen fa jëlee ci jàmm yal na ñëpp delloo noonu ci jàmm di ñaanal suñu borom mi nga xam ñaan suñu borom mi nga xam dina taw ko sëriñ Saaliw suñu borom gën ñu koo tëbbal ay leer yu yaatoo yaatoo yaatu di ñaanal suñu sang bii suñu borom bàyyi ko fi moom mboolem ay rakkam ndax lii tawfeex la joo xam ne mënee su nat uh-huh. ndax Euh, maa ngi suñu alaaji mi dafa am ko ñu fa fekk ni ñu tey lañ mos a ñëw xel koom nga gis ni loolu rek la borom bëggoon nga xam ne waxtu wu ne rek day mel ni saa su saa soo santaane kenn ñëw rek ngërëm loolee day dolli ko ci sëriñ bi dolli ku ci ñëpp dolli ci ki woote kon nag loola day mel ni waxtu wu ne ba abadan wurta dakk wasalaamaaleykum wa rahmatullah aywa jërëjëf kon sëñ Bada Ngok ànd ak eh, jëriñ sëñ eh, Alaaji Kan kon ñu daal di ànd ak suñu caméraman rek wan leen ni ñu defaree barab bi ci kees kees yi ba ci jigéen ñi soxna yi wanag yi ak yëpp incha allahu taala Khelcom TV ak eh, fii ci Khelcom incha allahu rabi 2020. kees gi nga xamante ni moo féetee bët sa moo féetee sowu léegi fii moom nan ngeen ko doon ak baas yi ñaata baas la d' waaw suñu affaire fii boo dee xool ñaari kees la ñaari kees moo féetee sow ñaari kees yi féetee penku. boo dee xool kees yi ni ñu ko tëralee nii day mel ni plan ji. Mhm. ni sëriñ bi daan tëralee néeg yi nga xam ne moom lañ daan nekk ci biir ah. ji. Mhm. noonu noonu la ko sëriñ bi daan defee boo dee xool ñetti néeg yi ñoo jàkkaarloo. Mhm. yeneen ñaari néegi jàkkaarloo boo xoolee noonu lañ ko tëralee. képp koo xam ne yàgg nga ñëw ci daara ji boo xoolee bu duggoon ci biir da nga xam ne lii mooy plan bi nga xam ne moom lañ daan dëkk bi ñu dëkk nekk ci daara ji la plan bi demee. boo dee bu ci nekk juróom-ñetti baas lañ ci def. wërale ko ba mu daj. noonu lañ moom lañ def fii. moom lañ def fii. muy fukki baas ak juróom-benn muy fukki baas ak juróom-benn. lañ ko defee. noon lañ ko defee noonu lañ ko defee. boo dee xool tamit. Mhm. ci biir. Mhm. am na ay xayma yu ne ci biir. Mhm. ndax boo dee xool tamit eh, ki ki am xayma ak ki amul xayma mënuñoo bokk yem. ndax eh, ñi bu buñ defee eh, buñ defee baas bi ci biir. ñu wërale ko. nit ñi nga xam ne dañoo am fuñ dëkk ak ñi fu fuñ dëkk bokk ñoom moo tax ñu xayma yi ñu rancélé ko rancélé boo xam ne mhm. ñoom ñëpp ñooy bokk benn benn ligne bu ñuy bu bu ñuy nekk mhm. boo xoole boo gisee ni noonu noonu noonu lañ ko defee mhm. léegi nag espace bi nga xam ne moo wërale base bi ñi nga xam ne amuñu xayma mën a mën a daal dugg foofa noonu lañ ko lijjantee noona nga xam ne benn bu ci nekk buñ ñëwee kenn ku ci nekk dañuy feesal bii ba noppi bis yi njëkk ñëw dañuy fexe ba fii fees ñu organiser ko noonu ba képp ku fi ñëw rek mu mu mu mu mu daal di mu daal di nekkee noonu am na lu ma ci ràññee mooy ni nga ko waxee rek mooy keesu yi comme ni daara yi boo duggee ci daara yi ñeenti nekk ñeenti nekk ci wetu ndeyjoor bunt yi jàkkaarloo nga xam ne dañuy séenante nga xamante ni ku ci kenn du def loo xamante ni lu ayib la ndax jàkkaarloo gi ngay jàkkaarloo sa morom loolu plan bu am solo la ci plan Serigne Saliou Mbacké bi aywa di àndandoo doxantu jëm ci kees gi nga xam ne moo féete penku ndax soxna yaa ngi seen wàlla mm-hmm. ñu dem gis fi la ñoo fi inshallah gis ngeen kon ñaari kees yi bii mooy soow aywa mooy soow ñi ngi jëm ci penku bi mbedd maa ngi nii ab mbedd loon doxali ci diggante boo xam ne mbeddum 35 mètres wala 40 mètres ngir moo xamante ni dana gën a yaatu jëwrin aywa kon li ñuy def mooy war a dugg ci eh, kees gi nga xam ne mooy fële penku ba tey ndeyjoor ak càmmooñ ni nga expliqué fële arfan bi arfin ñoo yem. waaw noonu la demee. boo xoolee plan yi. benn plan la. Mhm. ñoo ko bokkale. Mhm. li nekk ci wet gi moo nekk ci wet bi. Mhm. mbedd mi nga wax léegi rek moo dox su diggante ñaari kees yi. macha allah noonu noonu lañ ko noonu lañ ko tëralee. li nekk fii ci bâche. moo nekk fii ci bâche. bu ñu xoolee lépp lépp ci xayma. mën na ñeen fukki baas ñeen fukki bâche ñeen fukki bâche ak benn. ndeysaan fukki bâche 41 41 yooyu da ngeen ko loué wala da ngeen ko jënd wala dañ am abal déedéet bâche yëpp dañ ko loué la yooyu yëpp rek dañ ko loué déedéet ngeen fi gaañi lu toll ak fan mbaa juróom benn fan wala fi jiitoo gaañi doon ko bâche macha la demee mhm. waaw boo dee xool tamit niñ koy fayee tamit daanaka dañuy fay eh, ñaari fan mhm. dañuy fay ñaari fan wala ñetti fan mhm. eh, soo li ci des ñu ñu soog ko bàyyi. macha allah noonu noonu nooñu ko defee. macha allah macha ah, allah ba tey kon ñi ngi dëgmal eh, bi ci kees yi keesu jigéen ñi. Mhm. am na nu ngeen ko liggéeye mhm. waaye sunu jëwriñ dafa mel ni moom moo nekk ci bunt bi. laataa ñu dugg. Mhm. nu ngeen liggéeyee kees gi ndax am na ay roq ay wanag wanag yaa ngi ci ginnaaw ak yëpp waaye sunu jëwriñ Sëñ Abdou Ndiaye keesam fii la nga xam ne bala ngaa ñaaj pour jàll da nga gis jëwrin mhm. ak yu mel noonu. waaw euh, ci diggante noonu lañ ko defee sax. Mhm. ndax boo dee xool tamit matériel bi ñuy liggéey li ci ëpp. Mhm. dañ ko utal euh, ab ab ci ginnaaw. ngir bagage yi nga xam ne dañ koy denc matériel bi. mu ñu ñëwee rek ñu daal di koy dugal faafa. ndax loolu tamit dafa bokk ci organisation bi. waaw boo dee dugg. moom nga njëkk seen. <laughs> muy doolu jëriñ bisimilah ñu dem. kon mbokk yi ba tey ñu ngi ànd ak sëriñ Cheikh Mbacke Dieng ak sëriñ Alaaji Kan mi nga xam ne nii moo fi nekk ak sëriñ Bada Sall jiitu euh, juróom benn fan lu jiitu li nga xam ne mooy le 25 kon ñëw nañ fi après euh, liggéey bi xam naa itam euh, sëriñ Cheikh dafa mel ni càmmoñ gi fii mooy dalub sëriñ Abdou Ndiaye waaye wet gi naa fa ay bâche yoo xamante ni bâche militaire la xam na ay yoo xamante ni man ñu ngi ko leeral laata ñu dugg mooy dalu bi fii mooy fii mooy fii mooy dalu jëwdin mhm. sëriñ Abdou Ndiaye dugal ñu xool dalu Serigne Abdou Ndiaye ba xam mbaa sigg na bi yoon moom waaw ndeysaan ndeysaan moom sigg sigg na moom macha <laughs> <laughs> <laughs> macha allah dafa am tawfeex ji ci am ren. muy euh, jimmi dal bi ni mu daa xatee. ren tawfeex da cee fen joxam loolu wóor nañu tawfeexi sëriñ bi la. ndax baas bi sëñ Abdou rek lañ ko daa defal ak ñi daa àndal. waaye ren bi bi ñu mbooloo mi bettee tam xat. dañoo mujj bi mu ñëwee moom ak waa këram. ñoo mujj bokk ak ñoom fii taxatut. lool nag tawfeex la ju yaatoo yaat joxe ne wóor nañu loolu ndimbal. gis naa fi sunu waajur muy rakk yaayam. ñu ngi fi tantaam ñu mel noonu day sant te it ñoom mënuñoo mënuñu ko bàyyi mu dem faaw mbokk ànd ak moom ak jëwriñ yi ñëpp ne buñ waajalutoon lii ñoom mën nañoo amaat yeneen jafe-jafe macha allah jërëjëf mel ni da ngeen fee jar ab bunt boo xam ne ab ruq la waaw bu génn jàll wala dafa am ay denc waaw day génn jàll fii nag moom laa lay bi ñuy liggéeyee daanaka fi lañ koy defee daanaka xeeti xottu saaku yeeg ak matériel bi xam nga fourchette yeeg euh, rato yëpp daanaka mi ngi ci tool yi léegi xottu saaku yi nga xam ne dañ koy dajale di ci sol gerte gi. waaw fii fii dañ koy denc. Uh-huh. léegi ngay séen ne nag. Uh-huh. loolu moom ak wanag la. wanag la boo xam ne dañ ko dañ ko jënd. waaw suturukaay lay doon. Uh-huh. waaw noonu lañ ko noonu lañ ko tëralee. macha lañ ko tëralee. dama mën na roq bu jàll ci ginnaaw daa mel waaw léegi fii nii nag. boo boo xoolee ñi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom ci liggéey bi. muy wàllu électricien bi. électricien bi waaw. ñi nga xam ni ñoo leeral dal bi. waaw ñoo ko leeral ba mu leer nañ. ndeysaan ak góor yi ñoo ko indi sa jóorin sañ sañ sañ Mbàkke eh, Mbàkke Mbay ànd koog Baye As. Uh-huh. ak sëñ Xaadim ak papa. Uh-huh. ñoom ñoo jóge xombal. Uh-huh. jiitu si ànd ñun jiitu si. taxaw liggéey booba. ñu ñu amee leen ak cant nag. amee leen ak cant bu wóor ndax matériel bi nga xam ni moom lañ daan liggéeyee. daanaka laaluñ ci dara. macha allah ñoom ñoo indi seen yëfi bopp. indi seen projecteur bopp ak seen i fili bopp. macha allah nga xam ne ñoo ko jaayanteel seen bopp. noonu la ñoom ñoo dal fii. xam naa du bëgg dañoo dem ci tool yi sax. macha allah sax moo tax ñu dàkk heure bi ndax euh, gars bari dem nañ ci tool yi te nii lañ mën a ñoom pour expliquer daal yi doo ay nit ak yu noonu ñëpp fekk ñu dem tool yi moo tax ñu tànn waxtu bi mbokk yi waaye itam li ñuy gis ak baas yi li muy tekki mooy buñ sañoon tey duñu ba moomal suñu bopp mhm. te loolu lañu nga xam ne ñii indi ay barkeelu niñ koy indee naa ne mën nañoo daan def nañ ko addi sëñ Tuubaa sëñ Bada. ma doon la ci tuuti sax am na jëmm joo xam ne. bi mu ànd ak sëñ Alaaji yëg ne dañuy luyee baas. Mm-hmm. nee na kër am na lu ko métti lool. ba bi mu ñëwee jaayante na baasu douze mille déwén. macha allah bisimilah macha allah. baasub 12 mètres buñ ci amee lu mat 30 personnes wala 28 muy Arafat Touba ku ci nekk jaayante baasub 12 mètres yaakaar naa dina daal di am solo ba nga xam ne du ñu benn jafe-jafe ni ki noonu tam rajo yi ak lamp yi ñuy soxla projecteur yi ndax lépp ñoo ko moom dañ ko raamal suñu bopp ndax loolu moo ñuy dimbale te suñu saal yu ci dara acca ñu dem ci dalu jigéen ñi mbokk yi kon yaakaar naa génn nañ ci dalub sëñ Abdou Ndiaye euh, suñu càmmoñ mooy perte penk bi dañoo ber soxna yi ñoom sax dañ leen wutal bunt li yi amut amuñu ay bunt ak yooyu mais fii dañ leen wutal bunt boo xamante ni am na ñun ñu taxaw ci bunt bi ñoo xam ne te nii boo bëggee dugg dañ naa lu yëkkati surtout bu dee góor mhm. loolu am na lu ko waral waaw waaw loolu moom euh, sëñ Afe képp ko xam sëriñ bi ci nekkinam te bi ñu fi nekk loolu xamoon nañ ko mënoon ngaa ñëw ba ba dem ci daara ji doo gis doo gis jigéen ni mu ko daan wat watandi ko ci nekkin loolu képp lañ fas yéene sàmmoon teg ñun mhm. ndax ñun Euh, la ñu daan doxe ci bii mu fiy nekk. ba tey ji moom la ñuy wéyal. ba tey ji moom la ñuy wéyal. liggéey bi lu mu mënti toll. danañ fexe ba danañ tàqale góoñ ak jigéen ci nekkin. loolu moo waral ñu ñu defee ko nii. boo dee xool tamit euh, ci wetu euh, ndeyjoor gi baas bii moo fi njëkk. ñun bi ñuy ñëw fii dara nekk fi baas bii rek moo fi nekk. baas militaire bi moom lañ njëkk taxawal. soogo soogo da nga xam ne daanaka bu ku ñëw ci euh, ci nit ñi. Mhm. Euh, boo boo boo balaa nga àgg ci ci ci ci dellu soxna yi di ñu di ñu di ñu fi fekk. da ñu ñaaj ba noppi soog a àgg. loolu moo militaire takk der la dafa mel ni bu ñu tàggee du xel di ah takk der yi kat bala ñu la jàll fi am na ñu fi nekk waaye li ma gën a neex ci plan bi sëñ Cheikh Mbacke damaa yaakaar ne sëñ Cheikh Mbacke xam nga moo saa dugg ci ñaareelu kees sëñ Saliou yaa ngi gis juróom benn koñ bu sëñ bi jigéen ñi nekk na le kon da ngay romb daara ji ñëw ci sëñ bi war koo romb door dem ci jigéen ñi kon defe mel ni jëwriñ li tax ñu def fii benn plan bu doy waar am na lu may fàttaliwaat acca wan ma ci biir ba xam ne nu mu demee ci jigéen ñi. waaw sëñ Yaafe boo dee xool tamit. Mhm. daanaka ni ñu ko ni ko doxalee ci palan B. Mhm. nga xam ni nekkinu daara ja. Mhm. noonu lañ ko tëralewaatee nii. daanaka ñetti néeg yu yu jàkkaarloo lay doon. Euh, noonu lañ ko defee nii moom lañ ko defee ci wetu euh, Saloum gi ak ak wetu gànnaar gi. Mhm. noonu lañ ko tëralee. Mhm. ba ci ñoom tamit ñi dal góor ñi dana dal ndax ñi am xayma ak ñi amul xayma tamit dafa day day day day. jigéen ñi ñoom tamit dañu am seen i xaymay bopp. ndeysaan ndeysaan ñoom dem seen xayma seen xayma moo tax ñu rangé leen ko nii ñu taxawale ko nii. ñoom waaw noonu lañ ko noonu lañ noonu noonu noonu la noonu lañ ko taxawalee. dafa mel tam euh, ngeen ko nga ngelaw lu bari bari dafa seen la comme Dakar comme ni ko waaw noonu la demee. ñoom fi mu doon nañ ko woddu woo xam fi doon ngelaw gi lu mu bari bari bari bari rek du leen sonal. macha allah du leen sonal. te ñu lañ fi gi kenn doo fi gis kenn ñëpp ña nga ca waar wa guddi ba guddi la ñuy ñëw ñoom guddi ba guddi la ñuy ñëw waaw guddi ba guddi la ñuy ñëw ndeysaan suñu eh, laaj wan ma ci biir kees yi ndax dafa mel ni kees yi nag xaw naa murite lool fii moom boo fi duggee mel na ni bakkan ne lool ni ma gisee fii moom wala lee mat la wala mer gàddu day am solo lool ah tubaarkàlla tubaarkàlla aywa nii la nii lañ ko nii lañ ko sëralee mhm. ñoom dañ leen a lalal ay bâche ci suuf mhm. teg ci ay basang nga xam ne ko ku am mat laa rek boo ko tegee ci kaw rek da ngay mën a da ngay noonu lay leere ci biir guddi gi bu jotee day leer nañ. waaw lamp yaa ngi nii. macha allah boo xoolee lamp yi ak projet projecteurs yi guddi gi day leer nañ. macha allah ndax xam nga bu ñëwee ci àll. Euh, ak guddi gi. Euh, bu leerul rek. Mhm. mën nañoo xaw a jaaxle tuuti. dëgg la dëgg la mu waral la ñu defal ba mu leer nañ. macha allah macha allah noonu noonu la sëñ Badara ci làmp yi li nga ci wax. ba dee taw fiix yi ñu àndal da cee feeñ. ndax dafa am làmp yoo xam ne solaire la am. waaw te sécurité biñ gën a bëgg fii la gën a jiitoo ba noppi te te te tàmbali ji te te te yëggagul fu ñu bëgg ñu jiital ko fii nga xam ne am nañ fa làmp yoo xam ne guddeeg bëccëg dañuy tàkk bismillah muy solaire yi ah, ah cëm euh, kon ba tey ñu jàkkaarloog euh, fi nga xam ne fi lañ def suturlukaay yi aca ñëwal ñëwal ñëwal damaa nekk ci ab liggéey euh, yaakaar naa ne euh, suturlukaay yi dafa dumóoyu dafa dumóoyu waaw dafa dumóoyu moo ngi ca penku ba ca jëlëg ba li wax jëlëg ca jëlëg ba waaw waaw noonu lañ ko doxalee ndax tamit boo dee xool ñoom tamit faaw ñu utal leen seen xurumu bopp. Mhm. ngir ngir ngir ñi bu ñu soxlaa lu mel ni fóot ak. Ah. yooyu noonu la. utal leen loola moo wanag yi moo ne moo moo nekk moo moo nekk moo waral ëtt bii. mën nañ fee sutur la wute kenn du leen gis sax. kenn leen la ko noonu lañ ko doxalee. waaw ah, lii neex na sëñ Cheikh lool. wallaahi ndeysaan waaw wallaahi. Mhm, ah mhm, ndeysaan. kon itam ba tey da ngeen ko wutal ay numéro numéro 1 numéro 17 numéro nangam nag. waaw waaw lii ay wanag la. waaw wanag la yoo xam ne noonu noonu lañ ko noonu lañ ko doxalee. lépp nañ ko wute fii te duñ génn fii muy ndox meeg i band waaw ndox mi ba nga xamante ni mooy band ndox yi nga xam ne mm. duñu am benn jafe-jafe mm-hmm. waaw noonu lañu ko doxale dañuy fexe ba ñoom ñu utal leen seen ndox uh-huh. te buñ xësee ba wàcc ba dugg rek uh-huh. dootuñu am fenn soxla ndax lépp fi lay nekk ndox lépp fii lañ koy fii ba ba duñu am benn uh, soxla ci biti noonu lañ ko noonu lañ ko doxale ah lii daw na yaram suñ baral lii daw na yaram kon nag yaakaar naa mbokk santaat uh, gërëmaat ndax mel ni liggéey bi nii la ci plan bi ni ñu ko waxee ñeent fukki baas ak benn